dina def recours ndaxte fii ñu toll ci arène nationale arbitre yi kii la ñu jox ndam kii nga xamante ni mooy rëg-rëg ci kaw Sa ginnaaw bi Gaston Mbengue tëggee combat boobu face to face yu tàng jër ñi gis ko seen diggante muy diggante Sa ak rëg-rëg ginnaaw supporters yi bi ñu jàppante jàppale ni que daal dimanche 5 mars 2023 kii di rëg-rëg daan na Sa Thiès jël bu kenn dul werante fii ci arène national la